mbokk yi dal leen nag jàmm ci biir limametti point com comme à chaque fois ñu ñëw ak yéen ci seen revue de l'actualité nekk li nga xam ni moo gën a fës ci xibaar yi fi jot a xew li ci a fës moom mooy Mamadou Ibra Kane demoon seeti xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké mu daal di koy recevoir loolu nañ ko yaatal ci biir seen revue de l'actualité ki nga xam ne moom mooy juge Samba Sall daal di génn àdduna ci semaine bi ñu génn réaction certains sénégalais di daal di choqué ki nga xam ne moom mooy Abdou Karim Gueye loolu aussi dinañ ko yaatal ci biir seen revue de l'actualité suñ ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d'information limametti point com ñu daal di koy dooree ak génn àdduna ki nga xam ne moom mooy juge Samba Sall juge a Sall nag nekkoon doyen des juges yoroon dossier boobu nga xam ne moom mooy euh, dossier ki nga xam ne moom mooy Sonko ak li nga xam ne euh, moom mooy Adji Sarr moom nag daal di génn àdduna ci jeudi bi ñu génn 8 euh, avril génn àdduna boo xam ne nag bett nañu bëri leneen loo xam ne tam bett na ki nga xam ne moom mooy Abdou Karim Gueye di activiste moom mooy réaction certains sénégalais ci génn àdduna ki nga xam ne moom mooy juge Samba Sall nee na gis na si ñoo xam ne dañoo kontaan fan ci génnu àdduna euh, kooku le nekkoon doyen des juges loolu nag daal di koy choqué euh, bu baax muy laaj Sénégal Sénégal euh, fan la jëm loolu yëpp nag mu ngi ko teg ci ndodu Macky Sall nee na ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall moom moo seetaan ba sénégalais yi daal di am haine seen digganteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo leen ñoom ñoo leen di jiite ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum yoon. ba tey ci ki nga xam ne moom mooy juge Samba Sall nekkoon doyan des juges xam ngeen ni moom moo yoroon dossier boobu nga xam ni moom moo lié euh, kii di Ousmane Sonko ak Adji ki nga xam ne nag moom lañ jot ni euh, moom moo daal moom moo war a remplacer ki nga xam ne euh, moom mooy juge Samba Sall di juge Mamadou Seck ki nga xam ne nag moom mooy juge Mamadou Seck si boppam moom joxoon nañ ko li nga xam ne moom mooy dossier boobu la waaye dafa désisté woon maanaam nanguwu ko jël ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fare ci li nga xam ne moom mooy justice bu Sénégal njortu ni moom moo nar a ki nga xam ne moom mooy juge Samba Demba Sall ci dossier boobu nga xam ne moom moo liyee Adji Sarr ak ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko Mamadou Ibra Kane demoon fële nga xam ne moom mooy Touba daal di seeti ki nga xam ne moom mooy xalif général les Mourides ginnaaw kàddu yoo xam ne nit ñi jàpp nañ ni tegg newul mu jëmale woon ko ci ki nga xam ne moom mooy xalif général des Mourides ci recevoir gi nga xam ne recevoir oon na ko waa coalition citoyenne ki nga xam ne moom mooy journaliste bi demoon seeti kilifa gile kii di Serigne Mountakha Mbacké nag bi mu ko recevoir dalal na ko daal di waxtaan ak moom won na ko ni nag ki nga xam ne li nga xam ne moom mooy propos yi nakariw ko benn yoon defu ci benn interprétation rafet lu na sax liggéeyu ki nga xam ni ah, moom mooy Mamadou Ibra Kane loolu nag nekkoon visite boo xam ni kii di journaliste bi demoon demoon na amal ko fa li nga xam ni moom mooy Touba. ñu daal di wax ci leneen wax ci ki nga xam ni euh, moom mooy Cheikh Sarr ak Ali Mandione nekk fa li nga xam ni moom mooy Zik FM ñoom nag ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, Raaya Musique Awards ñu doon ko amal démb ci vendredi bi fa li nga xam ne moom mooy musée des civilisations noires ñoom nag fal nañ leen fa tabb leen fa meilleure émission de nekk émission bi nga xam ne moom mooy Zik Feeling di daw fa li nga xam ne moom mooy Zik FM jàpp nañ ni mooy émission bi nga xam ne moom moo dàq ci année bi loolu nag ñu daal di koy joxo ñaari animateurs yi nga xam ne ñoom ñoo koy def di Ali Mandione ak Cheikh Sarr ñu daal di jeexale communiqué bi nga xam ni waa CNRA ñoom ñoo ko daal di def jëmale ko ci weeru koor gi xam ngeen ni weeru koor bi ah, li ci des ah, bëriwul looloo waral nag waa CNRA di mettre en garde ñi nga xam ni ah, ñoom ñooy télévision yi ak rajo yi xam ngeen ni tàmm nañ bu li nga xam ni moom mooy weeru koor ñëwee ñuy teg ay émission émission yooyu nag di wax ci ay mag yoo xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ay mag yoo xam ni liggéey nañ ci wàllu diine nekk ci tarixa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal loolu nag waral ba waa CNRA di ñaan ñi nga xam xam ñoom ñooy télévision yi ak rajo yi ñu daal di xoolaat bu baax contenu yooyu nga xam ni moom la ñuy dugal ndax loolu dafay menacer li nga xam ni moom mooy déggoo gi am ci biir tarixa yi nekk Sénégal loolu nag di benn communiqué boo xam ni waa CNRA jàllale nañ ko balaakoor gi di yegsi voilà mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon loon tey ci seen revue de l'actualité nekkoon li nga xam ni moo gënoon fës ci xibaar yi fi jot a xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti point com ngir dara bañ leen a raw ma leen di jox dig daje beneen yoon ak yeneen xibaar